jërë ngeen jëf mbokk yi ñoo ngi leen nuyu di leen ziar di leen bëgg bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay ah di di leen dalal bu baax a baax di dalal sama ñaari invité yi seen émission bu mag bi nga xamante ni mooy jàmmaarloo tey nag bu ma nee jàmmaarloo comme ni ma koy defee chaque jour xel dina dem ci amateurs yi xel dina dem ci supporters yi xel dina dem ci mbër yi waaye xel itam dina dem ci ñi nga xamante ni ñooy ànd ak mbër yi ba tax na tey ñu ñu def jàmmaarloo dalal fi ñaar ñi nga xamante ni ñoo fi teewal seen i mbër mu nekk combat boo xamante ni combat bu neex la komba bu mag la ci diggante ki nga xamante ni mooy Mamaya ak ki nga xamante ni mooy euh, Kara Dollé ma bàyyi la ñu nuyoo après ñu doog a wéyal waxtaan bi maa ngi lay nuyu di la ziar bàyyi nga nuyu mbokk yi. waaw ah, mhm. ah, baat bi xanaa dangaa <laughs> ak supporters ko nuyu moom élage moom. baax a baax. gis ngeen noonu lañ koy defee gannaaw nuyoo nañu bàyyi adversaire am maanaam naataango mu nuyoo. waaw salaamaaleykum. maa ngi nuyu maa ngi nuyu ñi fi nekk ñëpp. ñëpp ñëpp ñëpp. mag ndaw góor jigéen di nuyu tamit fi ma bàyyeekoo muy tëngee. waaw di ñaanal sama mbër. Mama Yaa soldat bu Bamba di ko ñaanal baax a baax a baax si li mu dëmal suñu borom defal ko ci ndam mhm. ok ñu gis ne combat bi dafa nekk combat boo xamante ni bu neex la waaye dafa am loo xamante nii nii dafa dafa dafa wundu combat bi. su ma nee ci su ma ñëwee ci commencement ba damaa ñëw damay ñëw ci Mama Yaa. waaw dama ko seeti ba ki démb. Mhm. Euh, mu ne dafa am lu tax mu jël combat bi parce que dafa bëgg a corriger Kara Dollé ndax li mu wax magam neex ko noo noo gisee loolu. waaw Mama Yaa li mu wax dëgg la. Mhm. parce que ku xam Mama Yaa xam ne Kara Dollé li tax mu jël combat bi mu jël combat te ñun it xam nañ li tax ñu nangul. li tax mu jël combat bi. waaw xam nañ ko. lan moo tax mu jël combat bi. parce que dafa am lu mu gis dafa tombé muy jeex nag mu dal ci kaw moom mu jël combat bi. lan la leeralal ñu ko maanaam Mama Yaya ñëpp xam nañ ko. Mhm. bu dee fit kenn ëpp ko ko boo ko joxoon Balla Gaye samedi mu bëri boo ko joxee Modou Lo dimanche day bëri kenn ëpp ko fit wax nag mënut a ñàkk te tëngeej lañ dëkk xam nañ ni ñuy doxee bu baax. raadool li tax mu jël combat bi loolu da koy nax da koy nax bu baax a baax a baax te sama waa ji bu demee dina ko ko wax te dina ko seetaan dina ko dégg li tax mu jël. loolu da koy a bu <laughs> baax dëgg la. dugg na fa am fandam voilà xamal loolu la. waaw léegi balaa ñu ñëw ci loolu sax damaa bëggoon ñu ñëw ci li fi nekkoon di waaj jeex. lan moo fi nekk di waaj a jeex ba mu yaakaar ne su ko jëlee da ko ciy tegaat lan la leer la ñu lool. defet yi la wala. voilà defet yi la. parce que moom bu karaat defet moom yaa cinq defet la teg. waaw bu baax. mën na nekk six. mais. day sixième kay. waaw ma ne ba sept huit. mais du ci yoon wi di jamono ji ñu toll. Maya day course moto lay dawal. Maya. <laughs> waaw dëgg la. moto lay dawal mooy lan. day day kuusu. mais Kara Dollé dafa yor saret. non déet man affaire yi sama bopp ba léegi. Euh, Mama yaa dafay kuusu day dawal moto wala dafa daanuwaat wala. ah day kuusu Sinja. ok lii dafa mel ni xam nañ leen de. amul kii xamul dara day wax nii rek. ñun ñoo xam Kara Dollé. xamul ngeen xamee Kara Dollé. bu baax a baax. xamul yaa ñun bu fi ñu yàlla tegoon. Mhm. buñ bàyyiwul woon foofu duñ xool Kara Dollé. Siteu mbër sax duñ ko xool Siteu. ba mu leen teggee nag ngeen waroon a. non teggiwuñu teggiwuñu de. parce que borom Touba teggiwuñu maanaam nit dafa am loo xam ne bu la ko suñu di jox. da xam ne moo la koy jox lamb moo leen jéppi moo tax mu juróomi defar ah. gis nga ñi daan ñi daan mamaya ñi daan mamaya ah. ñi daan mamaya boo leen oowaatoon sañu ñu ko maama yaa mais li ma ah, si kanam lay moo lay dandi la geesu. a mhm. doon tey ñoom ñoo ko daan waaye lu mu ñu ne ñoo daan maama yaa ba tey. ah te ñu non te daan ko ci ak manière ci anam. xam déedéet. bu dee fit maama yaa da ko ëpp. Mhm. bu dee doole maama ko ëpp. maanaam ndogal la dafa am lu tax. te loolu nañ ko waaw léegi waaw léegi li ma bëgg a xam mooy lan moo lan moo undu lool wala lan moo ko waral lan ngeen yaakaar ne nii. lii moo leen di yàqal seen bés ci jour boobu. waaw li ñuy yàqal maanaam ñun ñun ñuy toog di ngema maama xam nañ te loolu dindi nañ ko moo tax ma ne Kara Dollé. dafa am lu baax dañ na dañ na. xam nga lay dañ. Mhm. nga dóor mu daan wala nga toog si kaw nii. te loolu loolu mooy am. li nga wax nii loolu mooy am. billaahi loolu mooy am. mais ñi est-ce leen moo tax ñu jël combat bi. déewuñu leen dara ñee gàrrekatu terrain lañ ay kursukat lañ. Mamaya Mamaya Mamaya. mais non Mamaya de entraîne Mamaya. moom mooy bëri soo jugee si dara da ngay teg ni lii nii dootul amaat mais doo ko teg la juróom juróom yoon. du yoon ñaar mu bëri ñaar gis nga ban mbër nga fi gis nañ ko fi léegi. Eumeu Sène naka daa xawoon na daanu. waaye bokkul Eumeu boo xoolee boo xoolee kanam gi sax yërëm ko. yow Boy Sèye ngay tëgale gi Boy Sèye day entraîné def ñàbb kombaam day métti. Mama Yaa musul simeeku Mama Yaa musul simeeku ba instant bi ñëpp nga ko kii Boy ne kii xam ko ah keroog de dee ma nee ma keroog interview bi ma ko jël nee ma bu ko defee Kara na góorgóorlu ba doom yi bu mu ko naan man ko may naan doom mu ne ma moom. nee na moom nee na moom du naan doom. Kara Dollé la ñëw waaye jamono jii. nekk Kara Dollé dara lay doon. dara lay doon dama la jox exemple dara lay doon. bu baax yàlla na gën a naan lay doon moo ko njëkk a naan si mbëri. déggoo ma de. kan Kara Dollé. moo ko njëkk a naan si mbëri. yaa ma déggul de Kara Dollé di la gaa jege ñun Malick lañu jëkk teel pël jege ñu. duñ neex toog maya di ni muy yéeg. bilaay boo fa yóbboo Kara Dollé bu bu bu yéegee pour mu wàcc. amul tëngeej de amul tëngeej. di falam si tëngeej. nañ dem kuunu te ngay kuunun benn la. ah waaye nga naan kuun man ma la bi sama mooy ñoom ñëpp ñoom seen i mër sax fa la ñuy ñëw pour entraîner. pour entraîner seen i mër. <laughs> ñu yéeg din din yooyu. déedéet da nga koy dëgg fii mbër bu fi entraîner. te ngeen soo war a te dëgg te yàlla an pël mooy entraîner ne la foofu waxaat fii la lay wax. la. mais kuunun maa ngi koy soog sax. yaa ngi koy soog mais est-ce amul est-ce que amul ay din yu bees yoo xamante ni dañ ko dañ koo daaj yi ay booy seyo ay usine doole ñëpp fa la ñuy yëg dama ne la pour mu wàcc bu gën a muur du wàcc soo ko demee laa maasale nañ lépp jaay ba ay kër non non foofu maasu foofu kenn mënu ko maasale foofu ko teg mu muur camion bi loolu ko dindi amul loolu kenn mënu ko dindi dara doole de am na ko nax dëgg nag muy combat bi mu jël dara ko bilaay si dara naxu ko te ah, jël kara ndax borom daaw waaw loolu bëggoon naa ñu ñëw ci tuuti parce que dama gis dama gis dama gis ku ci nekk naan euh, yaa njëkk jël avance bi kii moo njëkk a jël avance bi parce que ñoom ñaa dégg naa dañoo bokk benn sëriñ ku ci nekk dem taxaw wax ci wax ju rafet sëriñ su ma sañoon yéen ñaar du ngeen bëre combat bi taxaw na ku ci nekk di ko jiin sa moom maama yaa naan kaa doolu moo njëkk a jël moo a jël avance ko njëkk a jël promoteur woo ko ko xool ka lañ njëkk jox avance ak billaahi wallaahi wallaahi maa ngi toog ñi muy filmé ñi ñëpp koy seetaan dama ne fëtal micro bi tuuti. biñ koy Kara Dollé. Mamaya mm-hmm. koy woo téléphone maa ngi toog man kenn nettali ma ko. bi ñuy woo kon téléphone. bi ñuy woo Mamaya. Mm-hmm. nekk Kara Dollé nee na bëgg na la. Mm-hmm. Mamaya fii da koy rey xam lu mu si teg ki nga woo du ma tudd turam mais ki nga woo lu mu ko ci tegal. bu la neexee jëlil avance bi ma ne sama manager signé naa combat mu dem signé ko ñu jàppandat ñu bëri. mama yaa nag si boppam moo jëkk a jël avance Kara Dollé li ngay wax xamoo si dara. bii yaa ngi rek Kara ma la jël ma toog a jàpp dama bi muy man maa yëg di paas jox muy kañ samedi. waaw paase. avant boobu may déglu rek may déglu ma expliqué la. waaw waaw wax loo xam ne dafa leer fekk tëli ba lee duuru te yër. Mhm. yëkkati jox ko paas mu dem. maa ngi ànd benn tëgg kanam bu ñu naan saale biige. Mhm. ñoom Thio Mbaye. bi ma fa jugee benn xew laa demoon waaw ñëwee si xew bi la baatare sax avance mm. <laughs> loolu ba wóor na. moom mooy dégg nii mais mais est xam nga benn affaire parce que yéen tey. Ah. da ngeen ñëw ah jàpp jàpp ama neex yàq lu mel ni xewee fan yi ngeen tongal ko wàccu leen ko. Ah? te dégg naa keroog euh, Mama yaa nee na ma bi ma bi bi combat bi taxawee ama neexa ma njëkk a woo na ma dégg naa jël nga combat bi fexeel ba nag ci teg sa bakkan bi te sooy dem stade man maa la yóbbu. baa xam nga ah, ci Kara waxoon de. baa xam du tey soo bëggee mën nañ see xoolal lu yàgg Kara doole ama neex du tey loolu lu yàgg la. mais lan mooy seen problème ak waa Tëngéej ci yéen. waaw lan mooy seen problème ak waa Tëngéej. parce que moom laa bëgg moom moom laa bëgg mu leer nit ñi nag parce que loolu dafa yàgg. am naa lu doon si seen bi ñuy basketee. waaw dafa a coow moo tax ma tey loolu dafa yàgg te moom loolu noonu moom su su dawalee xelam rek. te combat bi dégg naa ci dégg naa ci ay suuf ne tëngeej lañ ko woon bëyee mais yéen da ngeen a bañ. déggoo li ma la wax su nekkoon ñoom seen biir kat dañ leen kër tënkee yëpp. waaw lu tax lu tax lu tax bi ñu leen proposé ngeen di bëre ji euh, fee seen stade bi. ngelaw euh, ngeen bañ dem bëre ji foofu. billaah dañoo xoolal seen stade boobu du stade du stade pour bëree stade pour bëree dañu ko Pikine la n'est-ce pas. Mm-hmm. stade bi soo ko defee dañuy dañuy soofantal làmb ji tey jii dina am avantage fa

tëngeej boo fa demee ay lébu déggoo ma de déggoo ma dama la tëngeej même amateur yi fay seeraan sax nañ leen sànni ay xeer du nekk ñun ak yéen de yéen ak amateur yi lay doon ndax yéen yéen mënoon leen gën a doon waga ndax ñun bëbës leen dëkk dama lay xamal dara tàmbaleen moom damay déglu rek mënoon leen gën a doon waga tëngeej mënoon ñoo damay déglu mënoo tudd ñetti bandi te ma ne la ñett ñi kenn gi dina dëkk tëngeej wala ñaar ñëpp doo leen bokk bu boobaa ñii fi mu toll nii da leen da leen naawtal de fi mu toll nii <laughs> tuddal 40 bandi nañ dëkk tëngeej mais montage moo la tollul fii dama ne la. dama la jox exemple. Kara Dollé Kara Dollé dina seetaan dina dégg. billaahi wallaahi mayaa da kay warax. barki Seydina Muhammad ama neex. ma loolu. maa mayaa maanaam fit kenn ëpp ko ko man dama ko xam maa ko ma fuuf maa mayaa bi ngay gis maa ko ma fuuf. Mama yaa moom ëpp Kara Dollé fii xam nga Kara Dollé la ah déglu ma rek déglu ma ay see jamono bu bi kon ba jamono ba ay see ay see laa la wax kon Mama yaa moom ëpp sañ-sañ mu toll seen instant doo bàyyi bu ko jëmuñu ne paral yow tax bu dee kattan bu dee kattan ak fit bu defee bu deful yëpp moom la ñuy ñëw jël yóbbu ndax moo fa toll nu kenn toll. rawatina Kara te gën fa nekk xale. bu dee fit kenn ëpp ko ko. du daw du daay mais xam nga luy problème ñun dañoo nangu muy xam nga luy nangu defee di ñuy suñu boroom teg dañ ko nangu mais. maanaam fi muy teggee ko fa ngeen ñëwee mais mais dama bëgg dama bëgg yéen moo neex ndax mooy ko. far force maanaam foofu ngeen di ko. waaw far force <laughs> nangu Kara Dollé déggoo ma la benn mbëru tëngee yebu ko. seen tënk fi déggoo ma de seen tënk fi yebu ko bi ngeen di ama neex ma Ronaldo ma ah, Ronaldo te may tëglu kooku du mbër ah, nga bëgg a xeeb. non waaw yow na nekk mboccu mais mu dugg si lamb lamb amul xale. non dama la bëgg wax pour léegi bëree nga. waaw lamb de moom bu ñu demee ba di boole ñaar ñaar ñaar nit rek ay naataangoo lañ. Mhm. maanaam. c'est que nga maîtriser wul sa mbër bi nga la sa mbër sa mbër moo warul mën a bëree Ronaldo. ndax la ndax la ndax loolu man bu ma doon romb du ma seet du ma dagg sax ticket pour seetaan ko. ndax la parce que xam nga lu ah. mi ngi mel ni nga jël ma man boole maax kii. déedéet. ah noonu la Kara Ndor mais est ce léegi la Ronaldo yokku taay bi nii bi. ma ne la jël sa waay ko fii te ngeen mais xam nga dama ne da ngay boole ñu ñu tolloo Doole du combat loolu mais dama lay wax si. si xeeru seer boobu boobu ñaari la. kan si boobu te Kara nan la doon jamono jooju noonu. xaw ma sax ñaata combat xam man mënuma ko mënuma ko mënuma ko xool. ndax bàyyiwoo ko xel bàyyiwuma ko xel. Kara doole dama ne la Mama Yaa nattu yi bu tegul ci kaw billaahi wallaahi du xool Kara mais mais mais Mama Yaa soo may soo may soo may jox palmarès sax Mama Yaa ci ñaata combat lay toll. Mama Yaa cinq combat lañ quatre combat cinq combats moo ko kan moo koy cinquième. kan la waxal. kan moo ko daan eh, da lim ma tontu la. déedéet da ngay wax waaw léegi waaw léegi limal ko quatre combats bu nekkee cinq mu dolli ko ci. kan moo ko daan <laughs> Nandi Fall. Uh-huh. ah ak Drogba xaw ma dawalkatu camion boobu. c'est vrai dëkk yu ñaaw yooyu Drogba ak. ak ak kii ak. kii waay sama waa ji Drogba moom mu daan ko noonu dóor ko mu daan noonu waaw kan la dóor mu daan xam fa lay gën a ñaawaatee waaw si Kara Dollé ndax Drogba Kër Massar la déggul ma la Kër Massar te ngeen mënu ko yeb si kaw ko ko yeb dañuy taxaw rom fayaas leen di leen gis ngeen ngeen di leen yeb yow yaa ma déggul si wax de lu tax duñ leen yeb mënoo mënoo leen ñoo yeb nii lu toll nii wallaay asi mënoo kaa xam xam nga kañ nga koy xam ah, ah. Kara Dollé futteeku ñëw nga lëngaat sa mbër yow ngay comprendre Kara Dollé musul futteeku bañ fanka ci télé ndax maanaam lañ gisoon ca moom moo fa nekkatu Kara Dollé lañ gisoon ci moom nekkatu ko Kara Dollé xam nañ ko xam nañ ko bu baax. wallaahi xamoo Kara Dollé billaahi wallaahi xam nañ ko. mais mais ñoom moom Touba te bi ñuy daje moom jamono jooju bi mu doxee ñun dañu man sama bopp man man du ma tursi man dama xam naa sport bu baax dama koy dund su ma gisee ku ci nekk dama koy xam bi mu bi mu doxee billaahi wallaahi dama dem ko si moom siyaar ko ndax xam nga lan jëmmi Baay Faal gi mu doxee. ak ma sentir kàttan gi nekk ci moom. mais gis nga bi mu guuxee seen xeet affaire yooyu. la nekkatul karaa karaa doole bàyyi faa lim doon moom dafa tarbiyu. karaa dafa nekk ngeen dund bàyyi faa da ngeen di ñëw tëngee douze mars. ba léegi fa ngeen di ñëw dund ko suñ ko dund loolu duñ fa ñëw. dama moom teg ko foofu. kon xam leen ko gën a dund fuuf. ñu ñu nga war a takk ñu ngi koy takk ci yow. moom bu ko doon takk sax dañ naan ko tekkil xam mhm. mais gis nga fi ñëpp war a takkee day takk ba takkaaleen ñeneen nag yóbbu mais li ma ci li ma ci gën a jaaxal mooy dama gis euh, Mama dafa tegle ay série defet su ma ñëwee ci kaa doole moom tamit tegle na fi ay defet yoo xamante ni nii deux défaites xaw ma xaw ma trois défaites yoo xamante ni nii combat bi kenn woowu cee daanu ci yéen ñaar looloo ci gën a gaaw ci yéen ñaar xaw ma nag nu nu naka lay demee. waa mooy li may wax mooy trois la xam nga xam nga am na yenn defet yoo xamante ni moom sans verdict yi. waaw défaite la ñuy bind waaw sans verdict moom. amul buuxante ba ba ba làmb ja jeex. loolu ah, tamit waaw <laughs> mama yaa day ñëw ah, mama yaa kaaw moom def tam ay kaaw la de kenn mësu ko kaaw <laughs> kenn ah, man de jàpp naa Ndandi Fall ak Jara 2 ñaari defet yu mujj yi yoo xamante ni moom ay comme benn bi sax moom Jara 2 sax xaw na yàgg mais moom Ndandi Fall moom prib dip man ba mais nag mais nag mais nag sànq yaa ngi wax ci Ronaldo ak ak ak ak Kara Dollé mais su ma ñëwee ci Ndandi Fall waa ak ak waaw ni mu dawee ak ni ko Mama Yaa ni ko ni mu daane Mama Yaa ma wax la loo xamul ci combat boobu gis nga combat boobu billaahi wallaahi tallaahi suñ maanaam Mama Yaa war du xam nga daa ma ne du mbër du mbër mbër du mbër du du baax mbër du am xol bu rafet mais bu fekkoonte ni ndax mbër xol bu rafet xaaru nit non dafa am beneen côté laay waxee. maanaam mbër day sadik. voilà déedéet waaw daa jëlul ay matuwaayam ngay mbër mën naa bañ a maanaam daa parewul. daa parewul jëlul mbër ma bu baax dama ne mbër. yaa du mbër xam ma ne mm-hmm. man moom ma man moom moo tax ma ñëw fi. Mm-hmm. mais la moo tax ma ne la du mbër. Ah. gis na mbër ah. boo ko doonee ah. doo yërëm xam nga doo yërëm bi mooy la lii laa bëgg lii nii laa bëgg te su ma demee si moom mu ko jëlee su may wañeeku ci lii laa jëm. nga assumé nga boole lépp assumé ko. nga boole lépp dem jël mais fekkee ne dafa am looy yëg. xam nga la ngay boole. la ngay wax dama lay wax lamba jooju ah, lay wax. dama lay wax dama lay dama lay dama lay kuréel dama lay wax dama lay jël na ko. xam nga mooy problème fii ñëpp seen xol a rafet. Mhm. mais ku si nekk boo xam ne tey jii nii kii mbër bii nii su ma ko jàppee tey jii nii waruma mën a yeb Mhm. tegle naa defet kii dama naan ko ciix ñëw daan ko ah. ne ko xol bu rafet dóor mu dal ku la ko su boppam ku la yónnee da ngay yónnee la moo tax tabaatin toog si télé bi nag mooy dégg boo ko waxi tabaatin sa waxi mbër ma tontu la waaw dégg non dañuy exemple taxaw mu taxaw ne carrément lii maye ndam jaral koor waaye léegi jaral nag da nga ko mu daan dégg nga tabaatin bu ñu kaa daan barki démb kan Ama ah, Baldé non mais après daan na Zos. daanaat daanaat ki nga xamante ni mooy mooy mooy. tabaatini Zos du làmb. tey jii soo sama xaalis Zos laa ko tegoon. <laughs> waaw yow xam nga da ngay wax làmb quoi jii la mhm. jox rek koo jox moom jàpp na ne day fil ka dem. xam nga lu tax en tout cas combat bi moom bu seen xel dem ci loolu. ndax làmb joo xamante ni la. tey di nga ñëw fekk dara rek nga danga koy kàjj dem nga ñëw fekk benn bidon rek danga koy kàjj def na deful dara fekk bidon dafa def dara léegi yow boo ñeekoo looy def. boo ñeekoo looy def. laaj naa la ko. balaa ngay kàjj di nga fekk nga sol dara. lamb nekkul ay kàjj dem lamb nekkul teg ay bidon kàjj dem. lamb oh, nekkul ñaari façon la ñu la ba xam ne yaa ngi gis wala gisul. yow dafa mel ni doo dégg. dégg mënu maa dégg loolu. xam nga mënu maa dégg loolu wala boog dafa xamul milieu sport nu muy doxee. man dama ko xam bu baax. dama ko xam bu baax a baax. lamb daal soo jëlee avance dañ la si contrat. lamb li ma ci sax moom seetaanul xaaj bi. sama cameraman moom may signaler ne temps bi jeex na gis ngeen tey amuñu jotuñu sax am temps am entraînement yi waaye gannaaw jàmmaarloo moom chaque jour day neex euh, xanaa ñu bàyyi leen euh, ngeen tàggatook mbokk yi ah yabaat seen waa koñ yabaat waa mbër yi nga xamante ni ñoo leen fi yabal wax ak ñoom bés bi. ñu xam ne du bés bu tuuti yab leen bu baax a baax mu bàyyi la nga njëkkee ko tàggatoo ma jox sa waay mu tàggatoo moom tamit. waaw dañuy santaat ñëpp di santaat waa Kër Massar di sant képp kuy jàppale Kara Dollé. Hmm. di la sant di sant caméraman yi. ji moom mënut a yomb xam nga mënut a yomb Kara Dollé instant bii nii mu nekk moom ñu boolewuñ dara ki wax instant liggéey rek moo ñu war moo tax wax ji sama xaw bari quoi di jégalu nag su fekkee am na lu ñaaw lu ñu wax quoi. non non jàmmaaloo nii demee parce que xam nga làmb fi mu toll comme ni ma koy waxee chaque jour rek mbër dañ naan du ma wax ak moom damay bàyyi bés ba mais a wax ndax loolu bokk na ci li nga xamante ni tax na waxoo fi dara loo xamante ni day gaañ ci neexal dong nga ko teg ñu bàyyi la tamit nga tàggatoo. waaw di gën a kontaan rek. di rafetlu ay mhm. gën a kontaan parce que wax nañ mhm. dépassé wu dëgg la te tamit bu bés baa noonu lay demee. Mhm. dinañ ko bëree ci jàmm suñu borom defal ñu ndam si jàmm liñ indi pour mu dal Kara Dollé dina ko dal di wax namit waa Tëngéej ñu génn mm-hmm. ñoom ñëpp ñu jàppale Mama Yacine bu ñu xool lu mu am ak lu mu ñàkk na ñëpp génn yi ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp na ñëpp na ñëpp génn fi turandoon daan taxaw képp ku Mama Yacine waaw fi mu daan taxaw di ñaanal nag suñu ñaanal bu baax suñu borom xaare ka àjjana di ko ñaanal bu baax a baax di wax ne waa Tëngéej na ñëpp waajal Mama Yacine seen doom la xale la te tamit dafa am fu mu jëm dafa am fu mu jëm te fu mu jëm ñoom xam nañ ko nañ ko ñaanal bu baax a baax di gërëm gars taxaw ñi xam nga affaire bi naaj na trop waaw di ñaan tamit ñu indiwaat ñu buñ daanee Kara Dollé waaw di ziar tamit sama soxna di ko ñaanal bu baax baax suñu borom gën ñu waaw jubaat leen. bu baax baax. amin yàlla mën na ko ah, yàlla mën na ko gis ngeen ni lay demee ci jàmmaarloo ah. foo kaf ak rek moo mais nag damay lancer appel. di wax làmb ji nañu ko tijjil làmb ji nañu ko tijjil espoir yaa ngi kii corona am na yooyu yëpp dëgg la mais nañu jël mesure barrière yi tijju ñu làmb ji ñu bëre parce que làmb ji buñ ko buñ ko rey lii bu buñ ko defee bokk na ci li nga xamante ni dafay rey làmb parce que promoteur bi mënu jël xaalisam jox mbër mi promoteur bi mënu jël xaalisam dugal feneen ak feneen ah muy toog tëdd di nalaw noonu du yoon mbër mi métier mooy làmb nañu tijji làmb ji xool nu ñu ko mën defalee bañ bañ bañ bañ bëri ci jàmm ak salaam ndax boobaak léegi tamit yàgg na di leen jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal sama caméraman yi di jaajëfal sama invité di jaajëfal tamit mbër nga xamante ne tamit yombalal nañ ma liggéey bi maa ngi kontaan ci ñoom bu baax baax te wax beneen yoon ci jàmmaarloo ak yeneen mbër yeneen fans jërë ngeen jëf